nuyu ci sa tur jërëjëf euh, yegsi nañ ci ñaareelu pàcc bi nga xamante ne ci la ñuy yegsi war a waxtaanee ñaari rubrique bokk na ci royuwaay mag ñu baax ñi ñu wax fas yéene waxtaan seen seen seen jëf ju baax ju ñu fi bàyyi waaye également ci suñu rubrique bi nga xamante ne moom mooy mode islamique ak Fanta Suguna damay bàyyi faatu Diouf nga dalal sa gan bàyyi ko mu nuyu ak askan wi ak euh, Fanta euh, ñu doog a xuus ci suñu waxtaan oustaz ñu ngi lay ziar. Oustaz Mara kay ñu ngi lay ziar bu baax barakallahu ñoo ngi lay delloo ziar bu baax soxna si macha allah di nuyu ñëpp ñu nga xam ne ñoo ngi ñuy seetaan mhm. ci télévision bi muy wal fajri mhm. ñaanal tabaarakallahu sëñ Sidi la Niass yal na yàlla kawel aljannaam yeesal yërmandeem yéegal ko ca barzaxu Cheikh Seydi Ahmed Tijaani mu dëkk ak waajuram ñu tedd yi macha allah. macha allah jërëjëf oustaz am nañu mbégte dalal la ci suñu plateau. ci kanam tuuti ñu yaatal suñu waxtaan may bàyyi Fatou Diouf Faye mu dalal ki nga xamante ne moom mooy ganam. waaye bàyyi ko mu nuyoo ak téléspectateur yi. waaw balaa may dal dafa am information bu ñu jox comme ba tey rek xam nañ Walfadjri ci ay leeralam dañ ne ni am na benn boulangerie buy tàkk fële ca cité millionnaire. cité millionnaire waaw ñu ñu koy xamal. donc léegi nii. Mhm. donc euh, kon bu fa sapeur mënee dem. bu fa mënee dem waaw. voilà léegi nii am donc euh, suñu invité comme ni ñu ko waxoon ci mhm. début émission bi ñuy waxtaanee ci maam Thierno Birahim Mbacké euh, mhm. di euh, rakk ci Serigne Touba mhm. suñu invité di Cheikh Oumar Bamba Diop di ab chercheur ñu ngi lay nuyu Cheikh Oumar Bamba jërëjëf soxna si ñu ngi leen di nuyu di am mbégte teew ci jotaay bi ak ci kër gi di bëggit ci bépp jéego boo xamante ne kër gi seq na ko ngir li mu représenté ci réew mi damay wax ne Cheikh Sidil Amin bi mu fi jógee état décrété wul deuil national waaye deuil national bi ëpp solo nag. Mhm. mooy kenn ku nekk ca fam toog yëg ne ki dem moom la demal. Mhm. yàlla yàlla yeesal yërmande ci kaw te ndonoom sama borom teg ci loxo ngi leen di ziare bu baax nag di bëj ci li ma jot a fekk ci plateau bi <laughs> ak ak coach <laughs> macha allah coach daal la sëñ bi. coach uh-huh. soo ñu sonal ñun ñëpp. boo ci mënee dara rek. coach daal ñun ñëpp coach sonal nañu. alors Fatou Diouf Faye ñu war a waxtaanee ci ku am solo. Uh-huh. ñu bàyyi la nga wax kan laataa ñuy dem régie jël suñu élément. waaw donc ñuy waxtaanee ci maam Thierno Birahim Mbacke. Mbacke demee régie ba ñëw macha allah d' accord ayca ñu dem régie fekk fa Ajaratu Penda Diallo moo Modou Fall ñu jox ñu suñu rubrique royuwaay. maam Thierno Birahim Mbacke moom la ñu war a waxtaanee si suñu rubrique bi nga xamante ni moom mooy royuwaay ay ca Fatou Diouf. ki nga xamante ne mooy Cheikh baa Bamba Diop xamal ñu ko kan mooy maam Thierno Birahim Mbacke. jërëjëf soxna si Cheikh Ibrahima Fati borom Daaru mooy rakki sëriñ Tuubaa ji nga xamante ne moom la sëriñ bi wax ne. Ibrahim alladi lam yufaariqni fi sigarihi wala fi kibarihi Ibrahim mooy ki nga xamante ne tàggoowul ak man ci ak ndawam mm-hmm. waaye tàggoowul ak man ci ak magam mooy ki nga xamante ne moom la sëriñ ci baax ne Ibrahim alladi lam yufaariq nii mm-hmm. fi kibarihi wala fi sigarihi fi sigarihi wala fi kibarihi Cerno mooy ki nga xamante ne mosula wuute ak man ci ak ndawam mosula wuute ak man ci ak magam mm-hmm. mu mel nag kooku buñ ñu ko indee ci rubrique royuwaay euh, ataytumul xawsa bariha ngir Cerno Ibra Faati Euh, ci société boo xamante ne dañoo nekk ci quête de référence mhm. ragal naa ne dina ci doy sëkk mhm. ndax royukaay dafa doon loo xamante ne mënta ñàkk boo demee ci alquran mhm. waskur joo dégg yàlla wax ko yonente bi rek da koy joxañ ab royukaay waskur joo dégg rek ab royukaay la yàlla di joxañ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom kii nga xamante ne mooy Cheikh Ibrahim nag ci jamono bi ci contexte bi nga xamante ne ci la ñuy dund ak jafe-jafe yi nga xamante ne moo nekk ci société bi ba kenn ku nekk di posé wu ay questionnement ci da amatul dara loo xamante ne mën nañ ko jàppee constante lenn lu nekk rek mënees na cee mënees na ko remettre en cause kon ñu indiwaat ku mel ne Cheikh Ibrahima Fati borom Daarul Muxti indi ak mm-hmm. dundam mm-hmm. dina baax ci jeunesse bi waaye dina baax ci dirigeant yi nga xamante ne ñoo dirige réew mi mm-hmm. ndax moom mi nga xamante ne mooy Cheikh Ibrahim jamono bi nga xamante ne dafa doon nit koo xamante ne dafa teel a yëg le poids de la responsabilité poids de la responsabilité ci ndaw bi ci jiitu dund doomu adama ay saison la mm-hmm. saison bu nekk lañ nga ca war a def mm-hmm. soo defee la lu dul loola ku sotti jeunesse jàng la laaj mm-hmm. jeunesse forger sa yaram la laaj forger sa xel ba doon nit koo xamante ne ku productif kay doon ci société bi nga nekk moo tax Cheikh Ibrahima Fatima moom bi mu tolloo ci jàng Cheikh Ahmad Bamba xadimi rasulillahi moo ko ne baa moo ko ne ba moo ne moo ko ne bàyyil benn yoon rek la ko mos a yabal ci ab sëriñ bu ñuy wax sëñ Mor Barama Jaxate te ba mu fay dem abiyaat yam ko nuyoo sëñ Mor Baraama yëg na ne kii di ñëw ci moom du danga kese salaamun faridun laa yubaara bi mislihi ila cheikh ibrahima misbaha ahlihi salaamun kama miskin wa wardin wa anbarin ila cheikh ibrahima misbaha ahlihi dongo buy ñëw oustaz Mara xam na ne <laughs> dongo buy nuyoo bayit yu mel noonu du dongab kese mm-hmm. waaye sëriñ bayit def ku def ku mat mm-hmm. na ne ko wallahi law kuntu zalat min xududakum mm-hmm. ila mamatiya ma niltu bi maxsuudi sama dong bii di ñëw ci man di dongab kese waaye bis bu ma amee imprudence sama loxo jëm ci moom mm-hmm. man li may bëgg tutuma ko am mukk mu mel ne kon dong bi xam na boppam waaye sëriñ bi jubli xam na boppam waaye liy firndeel ne loolu bi mu ci tolloo réussir na ko mooy sëriñ Touba ak ni mu toll ci xam-xam ku mu jox ndigal ne la demal jàngale ji xam nañ ne yow kenn rawu la mm-hmm. mu wax ko ne ko naadaytukal yawma bi ibrahim mm-hmm. allim fatan yanfa'uhu tafhim kon li jiitu ci ndaw muy armée de moom Cheikh Ibrahim euh, waajaloon na boppam ci booleem fànni xam-xam yi mhm. waaye leneen la ci des mooy nit koo xamante ne day sentir le poids de la responsabilité te du fléchir devant les difficultés mhm. parce que euh, yii ñuy gis jamono ji mhm. nit ki dem ba du dundam gi joxatu ko valeur ba tax mu mën a braver les mers wala muy braver le sable li koy waral mooy kooku maanaam poids de la responsabilité day tax yan responsabilité la amoon Cheikh Omar yan responsabilité la amoon maam Thierno moom ci laa ci laa bëgg a jëm noonu borom Cheikh Ahmad Bamba xadim rasulillahi bi nga xamante ne dafay jóge sëriñ bi dafa amoon ñetti force yoo xamante ne ñoo jàkkaarloo ak moom Cheikh Ahmad Bamba tubaab bi mënta wax ne dafa jëloon arme di xeex ak moom tubaab bi mënta wax ne da doon xëccoo ak moom suuf déedéet mënta wax ne tubaab bi da doon sëriñ Bamba da doon xëccoo ak moom autorité déedéet lan moo taxoon sëriñ Tuubaa ak tubaab bi am jafe-jafe yi ñu am mooy yuriduna ay yutfi u nuurallahi bi afwaahihim mooy gis nañ taalub yàlla buy bërëx bërëxi boo xamante ne leer na leen ne su fekkente ne àgg na fa mu war a àgg ñoom liñ indi du sotti mm-hmm. ndax damay wax ne tubaab yi li ñu investir Bénin ak Togo ak réew yooyu mm-hmm. ñu perte seen identité perte seen religion mm-hmm. perte seen seen identité culturelle yëpp junneem lañ def Sénégal te taxut mu réussir kon loolu li ko waral mu ñëwee bi fi ñëwee fi ñëwee dañ fee fekk ay fonk tranquille mais très efficace yoo xamante ne ñoo jàkkaarloo ak ñoom liñ indi Cheikh Ahmad Bamba xadimu rasulillahi ci front boobu la soo woo ak ñoom inni ujaahidu bil ulumi wa bit tuqaa abdan xadiman wal muhayminu kon tubaab bi yëg na li mu indi mhm. muy aliénation bi mu indi culturation bi mu indi mhm. xam na ne du réussir kon lan mooy pexe mooy jëmm ji nga xamante ne moo tax sama palans yi nët la jàll naa ko éliminer loolu mooy exil bi nga xamante ne moo am Gabon nga mhm. xamante ne du woon lenn lu dul euh, assassinat masqué parce que koo xamante ne c'est un natif euh, du Sahel. Mhm. di dund trois mois de saison de euh, euh, d'hivernage. Mhm. neuf mois de de de de sécheresse. soo ko bëggee yóbbu ci une forêt. Mhm. intertropicale. ci jamono boobu cent ans ci ginnaaw. nga xamante ne les les amoon na waxuma la ndegment yi les fauves mais amoon na sax ay air ay ay ay herbivores laa bëgg a wax. carnivores ay kii laa bëgg a wax. ay ñax yoo xamante ne deret la ñuy dundee. ñax ñax des herbes carnivores. Ah. ak ay ak ay mouche ak ay euh, insecte vecteur de maladie yoo xamante ni mhm. kenn xamul woon lu ñu mel boole ca nag ñoom ci seen ah. jëm tentative yi ñu doon def ngir rey sëriñ bi ah. Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasulullah ci boolem ni nga xamante ne du détaillé ko du fi xaj mhm. mais ku ne xam ne ne tubaab bi tenté na ci ay reprises yu bari éliminé jëmmi Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasulullah Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasulullah moom ci réew mi mu dëkk it am yeneen force yoo xamante ne moom la jàkkaar loolu mooy caddo yi nga xamante ne yëg nañ ne li sëriñ bi indi day fego cité ñoom li ñu yor mhm. ak moroomi sëriñ si nga xamante ne ay sëriñ lañu yoo xamante ne gis na ne lii Cheikh Ahmad Bamba indi ak ni mu dëppoo ak nit ku ñuul ni mu dëppoo ak suuf si ak jéego yi muy dox xam nañ ne su avancé ñoom it dina entamé seen liggéey léegi pour résumer euh, Cheikh Omar Bamba Diop un peu rek ci exilu Cheikh euh, Ahmadou Bamba boobu ak mhm. jafe-jafe yi nga xamante ne ko doon am ak euh, tubaab yi nga xamante ni ñu ko doon sonalee mhm. ban rôle la maam Thierno Birahim ci loolu laa jëm nii xam nga nit ki nga xamante ne moom ngay suppléer mm-hmm. soo xamul rôle bi nga xamante ne moo teg woon ci kaw mm-hmm. sa suppléance da nga koy échoué mm-hmm. pour nga xam maam Thierno maanaam ndab li ko yàlla may ak ni mu nekkee suñu référence ci ak njàmbaar ci fànn yëpp il faut nga xam d'abord moom kim doon suppléer mooy kan ak yan front la ko remplacer Cerno mooy ki remplace Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasulullah ci front ak tubaab yi ci acculturation bi ñu indi woon ak aliénation bi mooy ki nga xamante ne moo remplacé islam ji Serigne Touba doon incarné digganteem ak ceddo yi waaye digganteem ak sëriñ yi nga xamante ne ñoo fi nekkoon te am ca ñoo xamante ne defaruñ woon kooku mooy Cheikh Ibrahima Fadi borom daal moo tax sept ans presque huit ans yoo xamante ne moom moo fi nekkal Serigne Touba te booba euh, bi fi sëriñ biy jógee fanweer at yu topp tuuti la te tubaab bi amoon na droit de vie et ci bépp sujet français te terewul mu taxaw taxawaay bi mu taxaw ci gannaaw Serigne Touba ba dara delluwut gannaaw. ci diggante boobu képp koo xamante ne war na la fay jàngal moom la ko naar bi di wax naan rabbal muridin wa aqra al bannin al udaba u nujaba u tilka seneen jàngal na njaboot gi yar na murid yi ci at yooyu nga xamante ni at yu metti la woon waaye yëmut foofu nangoo liggéey. jàmbaari ci liggéey ba def ci ay résultat yoo xamante ne kenn mosu koo gis benn am na jamono boo xamante ne dund dafa jeex ci tund wi waxuma kër gi tund wi hmm. ba kër gi amatuñ dara lañ lekk mu mel num sàq moom ñett ba mu ko tiimee dafa wax ne su fekkente ne liggéey mooy maye dugub man Thierno duduma ñàkk ab dund Cheikh Ahmad Bamba ñëw dàbbali ko ci loolu ne ko wa fi zari ruuxul xalqi in kunta aaqilan wa fihi imaadu diini lil xorri wal abdi ak lu ngeen man di taxawal na ngeen fexe ba wut seen euh, seen seen indépendance financière c'est indépendance alimentaire parce que indépendance bi nga xamante ne moom la nit ki am mhm. mooy waral lu bëgg taxawal ci diine mu taxawal mhm. mu topp volet boobu ba xëy na benn bis recevoir ñaari lettres yoo xam ne ci moom rek la mos a ñëw mhm. administration nationale pénitentiaire yónnee ko lettre ne ko kaso yi amatuñ lekk Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasulullah yónnee ko lettre ne ko indil njaareem ab dund ci koo xamante ne mi ngi déparé woon ci sàqum ñett kon kooku liñ ci moom ci na ci ay résultats yoo xamante ne yenn rek la sanc dëkk boo ne bi mu Euh, li tax muy ku fidèle maam Thierno mille neuf cent mille huit cent soixante-trois la gën a jamono mille neuf cent douze lay doog a am kër sancal na Serigne Touba dëkk fenn fu nekk ci réew mi Serigne bi day jël kër gi jox ko keneen ci kanamam te maanaam du am dara loo xamante ne ñëgg ñëgg ci ci xolam lay doon wala ci xelam wala ci ay jëfam mm-hmm. loolu moo tax mu ne ko Ibrahima alladi lam yu xaalif nii ndax fidélité baax na mm-hmm. mais su ànd ak loyauté doo am njëriñ mm-hmm. kooku mooy Cheikh Ibrahima Fati borom Daarul Moxti moo sanc dëkk bu mag boobu ñuy wax Daaru Musi ci 1912 mm-hmm. te Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul séeral ko ay ngërëm ci front yëpp da ko bind leetar ne ko mata taqa aynuka ala hadihi al xuruf فتيقن بأن كاتبها راض عنك ردا لا سخط بعده وأنه طالب لك وأنه طالب لك من الله تبارك وتعالى ما يغبطك فيه جميع أمثالك فطب نفسا وخر عينا ولا تشك في كون هذا من ربك إليك بواسطي والله على ما نقول tey jeunesse bi euh, Cheikh Omar Bamba nan la lan la war a am comme repère ci maam Thierno Birahim Mbacké surtout waa xam nga mm-hmm. àddina mm-hmm. ñaari front rek la mm-hmm. dañoo am le front spirituel et le front temporel ki réussit les deux réussit la vie et réussit l'au-delà ku échoué ci benn bi xam ne am na pàcc pacc bu am solo boo xam bu fekkante ne àddina moom nga eh, moom nga moom nga eh, échoué échoué nga lu am solo waaye ku échoué àllaaxira nag dëgg dëgg loolu mooy échec ndax yàlla dafa wax ci alquran ne wala tansa nasibaka mina dunya wa ahsin kama ahsana allahu ilayk sa cër bi nga xamante ne moom la yàlla yàlla jox muy sa devoir ci dundal suuf ak dund ak maintenir harmonie bi yàlla bëgg ci kaw suuf loolu cër la ci doomu aadama yëpp Cheikh Ibrahima Fati borom Daaru Muxti Serigne Touba da koo joxe ñaari fond yëpp fu ci nekk mu taxaw fa def ca ci def mm-hmm. bu dee ci wàllu temporel euh, la mooy àddina ñaar rek koy doxal al ilm wal amal jàng ak liggéey mm-hmm. bi ko Serigne Touba ne wa fi zara'i ruuxul xal in kunta aqilan ba mu jeex muy bayit bi ma waxoon léegi maanaam tàmbalee na ci sàqum ñett ba xëy réew mépp di wut ci moom ab dund bi ko sëriñ bi joxoñee jàng ne ko jàng képp maanaam yow jàngal te képp ku mat a jàng nga jàngal ko mm. àgg na ci forme élite intellectuelle yi nga xamante ne ñoo gënoon a kawe ci réew mi mm. moo tax Cheikh Mouhamad Fadal euh, Cheikh Mouhamadou Lamine day wax ne law laahu euh, sëñ Fall day wax naan ataytu ilal mi'ta fi daarihi l mu'ti lushkiya shakwa xabdi min ya bil basti hamidul xisaali saabitul jësi umma xaliifu nadaa fi xaalil xis bi wal qaxti mhm. xam nga ne ki jàngal ki way bayit yooyu mhm. dëgg-dëgg lañ ko doon def loo mën na ko waaye bu ñëwee tamit ci côté temporel mhm. nga xamante ne mooy li doxal àddina moo wax la li nga xamante ne moom la ci def fépp foo gis Sëriñ Tuubaa am fa kër nga ko tàmbalee ci Daaru ba Daaru Muxti jëmmam jooju moom moom moom moo ko sanc su sëñ ba mosaan désigné sàncee bu rëy nit ñi naan lii de yaakaar naa di déng-déng moom danaan ñoom di xamuñu sëriñ bi wala boo xamuñu ma lu mu bëgg yàlla dina ko def te man mhm. lu toq sama bët jóge ci moom dinaa ko jëf kooku mhm. mooy borom moo mooti maanaam muy engagement mhm. bi mu am ci côté spirituel am ci wetu sëriñam mais engagement citoyen parce que engagement citoyen weesuwul nga nekk ci am réew ñu dem ba kaso yi amutun lekk nga woo administration pénitentiaire yóbbu leen say sàq di leen euh, bot ji leen lu leen doy te ngeen yóbbu biñ demee ba tubaab bi yónnee ko lettre bu ko fay dana ko man da ki may ki may ki may ki may lebal mhm. mooy ki nga xamante ne maanaam ak fayam xëjul fii waaye du ma leblante ak yéen mhm. muy engagement citoyen mhm. mais en même temps un engagement spirituel Fatou benn laaj dañuy dégg ci way ñu ne ba euh, sëñ Touba di génn Ceerno la dénkoon daaru dañ koy dénk euh, ba mu ñibbisee Ceerno la laajaat daaru ñu ñëw ñu bugg taxaw foofu tuuti ndénkaane na ndénkaane tey defe naa ni loolu am na nu boo ci waxee sax njiit yi mën nañ ni jàngee lu lu bare bare bari mm. euh, ki ki nga dénk mm. mu dem ba ñëw laaj la mu lu dénkoon mm. keroog ba muy delloo sëñ Touba dénkaane bi naka la demee woon keroog bi nga xamante ne ku baax ki jóge na ci tukki bi mm-hmm. bi mu jëmee dafa yónni Cheikh Issa Dieng mm-hmm. ne ko demal wol ma Ibrahima Cheikh euh, sëñ Issa Dieng dawal ñetti fas ba fekk borom daal fa mu nekk mm-hmm. mu woo ko mu ñëw wuy si sëriñ bi keroog bi muy rendre compte sëriñ bi da koy leeral point par point point par point point mhm. par point ba ci yàgg sëriñ bi ne teg loxoom ci moom ne ko Thierno ndax su fekkonte ne yow yaa dem ma mhm. wuutu la ndax dinaa ko mën a nii borom daaru tuur foofu ay xéwul yu bare mhm. bare bare bare waaye loolu mooy li nga ma doon def li li ma la doon def loo maanaam remplir ko très fidèlement mhm. loolu nag lépp ci la mhm. njaboot gi nga xamante ne leen doon yarte war leen a jàngal mhm. ñi nga xamante ne dañoo sóobu woon ci yoon yàlla te soxla ku jàpp seen ba ñuy jëflante ak waa pays ba loolu ci la waaye nag taa li ëpp solo nag mooy taalub yàlla bi nga xamante ne moom la sëriñ bi taalal yàlla fii ci Sénégal dara bañ koo fay bi muy ñëw fekk na borom Daaru Muxti dem na ba xam ne kii mën naa wuutu woote yàlla ak yonent bi mu samp ab béréb ci loolu moo tax woote sëriñ bi mhm. maanaam dëgg daayul mhm. tasul dara euh, amu ci lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy bi del si fekk lépp mat sëkk sëkk sëkk moom la mhm. ko naar bi wax ba tey ne ko rabbal muridin ndax mooy ñi nga xam ñoo sóoboon ci yoonu yàlla waqara albani njaboot gi ñëpp nga jàngal leen waaye ci at yu métti yooyu loolu mooy Cheikh Ibrahima Fatou borom daarul waaw mu ngi am solo donc. Euh, mu mel ni sànq li Moustapha di wax rek. la ñuy dëggalaat nee na nee na invité nga ku baax yaa ngi waxtaanee ku baax. waaw macha allah. <laughs> macha allah maam yéen a ngi perpétuer li nga xamante ne mooy œuvre maam Thierno Birahim Mbacke yi nga xamante ne da ko doon faral di def. waaw da Daaru ti xëy na suba nekk faar ci islam. Mhm. loolu soo ko waxee day laaj ngi indil ci ay illustration mhm. dañoo nekk ci jamono boo xamante ne. ba tey ci wàllu Daaru Muxti ba tey noonu së euh, Sëriñ Tuubaa joxe noonu maam Cerno mm-hmm. teg ko muy suñu royukaay ci lépp lu jëm ci wàllu temporel mm-hmm. muy suñu royukaay ci lépp lu jëm ci spirituel tey soo demoon Daaru Muxti loolu nga fay fekk mm-hmm. soo nee cëpp ci dëkk bi li ngay fekk ci digg dëkk bi mooy jumaa jumaa ji daare kaamil la àndal daare kaamil yi lu mu àndal maanaam bâtiment bu mag boo xamante ne mawlid lañ koy tudde foo mën di dem ci Sénégal doo fekk mukk foo xamante ne tabax nañ fa bâtiment bu à des centaines de millions te maanaam màggal juddug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rek moo di wane ancrage bi nga xamante ne mm. boo daarul moxti moom la ñu am ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daarul moxti maanaam dañ fay gàmmu guddi altine gu nekk mm. ak mépp moo xam muy taw moo xam muy naaj. ñooy jumaa ji. fois moom la ñuy gàmm ci at mi. Mhm. su gàmm gi ñëwee ñu gàmm ko. Mhm. gàttandoo ko bis gungee ko bis. loolu day wane ancrage bi nga xamante ne moom la borom daal moo ci am. Mhm. ci sunna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo demee ci ak njabootam. comme Serigne Touba Yonent bi la doon tuddee te moom ci ginnaaw Serigne bi la nekk. moom saxaaba yi la doon tuddee ay doomam. boo demee da fa fekk Miqdaad da fa fekk Zubayr da nga fa fekk Muaaz ibnu Jabal mhm. da nga fa fekk Ali mhm. da nga fa fekk Atiq da nga fa fekk Omar mhm. boolem al ashra al mubashara bil jannati ñooñu la ci daal jaww ta waaye ci wàllu xam-xam majalis bi nga xamante ne mooy euh, voie traditionnelle bi nga xamante ne moom la ñu jàngalee xam-xam fii ci réew mi dafa am innovation bu am solo bu ci am mooy maanaam euh, l'enseignement numérique Cheikh Abdourahman ibnu Cheikh Abdoul Quddus moo njëkk a génne mhm. maanaam jël ab téere comme ngeen koy jàngalee yéen ci majalis mhm. di ko def ci ay kaset ba mu wër adduna bi nga xamante ne boo bëggoon a jàng tey ji laxdar yu mhm. ba maqaamatul xariir yi wala ba shu'araul jaahiliya lépp Cheikh Abdourahmane def na ko mu ngi ci ay kaset sëñ ji Mbàkke mi nga xamante ne sëtu sëriñ bi la sëtu borom daaru kerey lu am solo ci wàllu wolof muy mustalaha xam nga mustalahul hadis mooy euh, science bi vérifier la véracité des comme ñun dañoo nekk ci société boo xamante ne euh, tradition orale la mhm. mhm. ñu dara mhm. war nañoo créer loo xamante ne xesta yi ngay dégg war naa am balance bu ñu koy peser ci la génne li ngay dégg ñu naan wér na lool wér na ak siiw na bu nee wér na lool mooy am na euh, euh, tawaatur la ba ci ba ci ba ci sëriñ bi bu mm-hmm. nee siiw na mooy xëy na chaîne bi dog na bu nee siiw na mooy nag gaa ko koy waaye yooyu yëpp nag ay innovation yoo xam ne day wane ancrage bi nga xamante ne moom la Daaru Muxti am ci mm-hmm. wàllu liggéey mm-hmm. waa wàllu wàllu wàllu wàllu xam-xam waaye bu ñu demee ci wàllu liggéey tey euh, njaga njaga njaay bari na merte cinq cent yu bari na ñoo xam ne xamuñu naka la tudd Mercedes 508. bari ñu bari xamuñu nu mu tudd Ndiaga Ndiaye rek lañ xam. waaw Ndiaga moomu kenn la ci talibé borom Darou Mouhty. alhaaji ah. Sëriñ Sall ci wàllu commerce mooy commerçant bi njëkk a réalisé. Mm. chiffre d'affaires un milliard. fii ci Sénégal. Mm-hmm. ngay gis kon njabootu borom daanu moo mm-hmm. ni ñu mel ci wàllu liggéey bu ñu demoon tey ci récupération de la jeunesse en mm-hmm. perdition kan nga ci gis ku ci moromante ak Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni kan moo ci moromante ak borom daaru moo Noreyni ah, wala boog Serigne Aïdara Mbacké ak mboolem sëtam yi nga xam ñu ngi fii ci Dakar def liggéey bu rëy rëy ci biir ci biir jeunesse bi kon daal loolu li muy tekki mooy ndono li nga xamante boo demee daaru moo Modou Kara mooy maamam moo jur maamam mooy mhm. moo jur bàyyam maam mhm. muy ay nit ñoo xamante ne dëkk la boo xamante ne polyvalence moo fa am mhm. boo demee importance bi ñu jox xam-xamu diine bi boobu importance bu toon lay moom lañ jox xam-xamu tubaab première école bi ñu fa njëkk ubbi 1960 ko fa ubbi le président Abdoul Aziz de la sax foofu la foofu la dala jàng muy dëkk boo xamante ne ñoom li leen ñor rek mooy xam-xam dans la globalité du terme moo xam macha allah Fatou Diouf mu mel mm-hmm. ni waxtaan bi mm-hmm. am na solo waaye waxtu wi mi ñuy xoj xam naa dañ koy dañ koy def euh, pàcc rek waaw dañ koy yeggaliwaat incha allah ndax xam naa ni waxtaanee ñu baax ñooñu du xaj ci ay ay ay mm-hmm. ndax seen jëf diñ fi def ci ëpp na ëpp na ëpp na lu ñu mel alors ñuy ñaan euh, rek euh, sët yi nga xamante ne ñoom la fi bàyyi yàlla nañu yeggali naal bi Cheikh Abbas doomam mooy xalifa te yeggalee ko seen sago Cheikh Abbas Mbacké mooy ab xalifa ak ay rakam Serigne Bass Basiru Anta Ñang ak sëriñ Xaalid Ibnu Walid ak ay rakam yëpp Xaalid allah euh, sëriñ Basiru Abdul Quddus mi nga xamante moom mooy euh, porte parole dëkk ba macha allah ak mboolem ay ma ya fa nekk di ay sëtam aa ak sëriñ Maam Cerno nga xamante ne ñun ñun dañ koy dañ koy <laughs> suivre loolu ca yar ga ca ca ca ca mbaax ga macha allah ak Cheikh Modou Kara ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax di ko jox wàccuwaayam Fatou mm-hmm. Diouf li nga fi indi am na solo jërëjëf bu baax euh, moom Cheikh Omar Bamba Diop mm-hmm. daal boo demee fekk yàlla naan xad kaanat lakum uswatun xasan fi ibrahima walladina maahu maanaam daal képp koo xamante ne nekk ci quête référence da xam ne ibrahim ak ñam àndaloon mat nañ sëkk référence waaye jeunesse réew mi su fekkente ne dañuy wut référence dañoo wut loo xamante day tax ñu joxaat seen vie valeur mhm. ba duñu au maanaam bëgg alali àddina mhm. du tax ñuy jaay seen bakkan mhm. désert bi wala ñu koy jaay ndox mi nañu dellu revisiter mhm. la vie et l'œuvre de Cheikh Ibrahima Faty borom Daaru Muxti dinañ fa fekk euh, euh, des réponses euh, ci seen boolem quête de référence wala quête d'idole boo xamante ne moom lañ fay wër muy lu intéressant di la jaajëfal bu baax rek Cheikh Omar Bamba Diop Fabel li mooy lu ñu indi woon tey ci rubrique royuwaay di jox daje incha allah beneen ajjuma ci beneen rubrique ci beneen rubrique incha allah ñi ngi koy xaar Fatou Diouf en tout cas amoon nañu mbégte bu baax a baax ànd ak yow waxtaan waxtaanee ku baax.